njàngum dawal nu ñuy def ba doon dawkat bu mag tàggat yaram dafay yokk kàttanu xol dëgëral siddit indi njaxlaf ku nekk mën na ko def te laajul ludul pasteef ak benn peeru dal soo bëggee doon dawkat bu siiw fonkal dénkaane yii nanga sax ci tàggat sa yaram na nga lekk lekk wu wér baax te am ndox nga sol ay dàll yu la jot te méngoo ak fi ngay dawe sol yére yu baax te woyof lool jàngal noyi bu baax moytu fat bu gaaw mba nagam deel tàllal say loxo bañu jub teg leen ni ñu ware bàyyil xel bu baax ci taxawaay bu jub baña weng yamalel say jéego di natt ñaata jéego ngay dox simili bu nekk bul teg sa yaram lu mu àttanul soo yëgee coono mbaa mettit wàññil mbaa nga bàyyi del déglu ay woy dina la sawarloo jox la kàttan dawal loo àttan baña ëppal ñetti yoon ci ayu bés gu nekk dina doy del xool ni dawkat yu mag yi di def bu yàggee dinga mën a daw ni ñoom nu ñuy jëmbate garab tey bisu jëmbët garab la mari dafa bég ndax xam na ni moom ak séexam dinañu ci bokk waaye xamul nu ñu koy defee mu laaj papaam kuy jëmbët garab nu muy def papaam ni ko li jëkk mooy nga am jumtukaay am na lu bare loo wara def sooy jëmbat garab danga koy bind ngir bañ a fàtte ci jumtukaay dinga soxla peel bant takkun kompos ñëmbat ak ndox ci doxalin yii la jëkkala sol ay gàng bala ngay gaañu ci loxo tàmbali la gas pax mu yaatu moytu la jaxase suuf yi ngay jot sooy gas nooyalal fi pax mi yem ak peel walla pik defal komposu sardeñ mbaa tos ci pax mi génneel njëmbat mi ci pot bi mu nekk laqar ci reen tegal ñëmbët mi ak suuf si mu àndal ci diggu pax mi soo suulee garab gi ba noppi moytu la gaaj reen booy sam bant bi téye ñëmbët mi takkal ñëmbët mi ci bant bi fii ak at lañu koy dindi muural reen ak tos dolli ci suuf teroose nan lañuy defare tuqusi ngalam senegal dafa gañe Pologne ci jongante football bu ñaari junni ak fukk juróom-ñett ca risi dëkk bi yépp génn di wone seen mbégte Ali ak ay xaritam ne dañuy defar tuqusi ngalam ngir mën a bokk ci xumb xumb yi tàntana fi ne dafa leen di jàppale ne leen su ngeen bëggee defar tuqusi ngalam nii la jumtukaay yi ngeen wara am pot bu yem bu amul dara bu mën a def liitar caas bu guddee juróom benn fukki santimeetar ak benn pont bant garabu niim bu tooy wala beneen bant bunu mën a dëngal bantu bu ndaw bu ñaar ba ñetti santimetar buy tee caas gi léegi nag mën nanu tàmbali di boole bënnal taatu pot bi ci digg bi dugalal bant bu ndaw bi ci biir pot bi na féete ak bën bën bi takkal bant bu ndaw bi ci caas gi jaarale ko ci biti xëccal caas gi bamu mu dang dugalal catu bantu niim bi ci pot bi bamu am lu ko téye wañaaral bant bi takk caas gi ci leneen cat li ba mu dëgër léegi am ngeen seen tuqisi ngalam bu leen neexee ngeen taaral ko wut leen bant bu ndaw te sew bu ngeen di cos ci caas gi am ngeen seen fowukaay yéen a ci des nan ngay jëfandikoo ordinateur xale yi laaj nañu seen nijaay nu ñuy jëfandikoo ordinateur léegi kat am nanu ko ci kër gi seen nijaay ne na leen ku bëgg mën ordinateur nii la xoolal ci kayit gi ànd ak tegtal yi ñu la jox na nga jàng nooy taale ak nooy faye sa ordinateur ci kaaraange gu mat sëkk léegi mën nga tijji sa ordinateur ba gis pàcc yi mu ëmb raayal sa loxo ci li féete ci suuf mel ne ku yore sa jëfandikool yenn saay jinax ji sula neexee ak jinax ji randaleel joxoñukaay bi ci biro bi maanaam ngiskali léegi tijjil weneen xët ngir mën a tàmbali ak jinax ji walla li tegu ci suuf te nga koy raay toxolal joxoñ bi ci xët wi tàmbaleel bind jukki bu ndaw tànnal ab jukki su boobaa dinga mën a soppi melo wi walla dayo bi na nga xam ne lu yomb te neexa def la bu ci am xel ñaar amul benn jafe-jafe jërëjëf léegi mën nga fay sa ordinateur ak bitong bi koy fay léeg-léeg del faral di baamtu li nga defoon soo koy def dinga nga mën a jëriñoo bu baax sa ordinateur dinga nga mën a demal sa bopp yow kese te kenn du la jàppale